boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo waaw ah, kon ñu boo maanaam joxe bi ñu boole ci lu tuuti rek su ko defee te joxlante ko aca murit aca murit ñaq jariñu waaw kon ñu continuer rek jox sa siiru su ko defee moom it mu def ab soññe bu am solo ñu bàyyi xel baax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 ci li sabab jëf ji muy diggante Seexul Xadiim ak alquran waaye sëriñ Cheikh Lo waxoon ne bala ñuy tàmbali loolu nag ñu jottali waale yóbbante Ibrahima Mbacke ñaamar nee na mi ngi bég ci jëf ji bu baax ak positif bi ñu am ci diggante bi ñu ko tàmbali ak fi liggéey bi àggee nee na ñu rafet njort bu baax ci ne liggéey bi lépp luñ ci yéene mën na ko cee mën nañ ko cee am loolu kàddu sëñ Ibra la yoo xam ne wax na ko sëriñ Cheikh mu ne naa ko jottali mbooloo mi gannaaw loolu nag ñu xam ne alxuraan daa doon tool boo xam ni yàlla moo ko jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi jëkk ci bay bañ jot ci mu doonoon téere boo xam ne moo mag ci kaw suuf doonoon téere boo xam ne bi képp ko àgg ci yàlla alxuraan moo la yoon yoon wa nga jaar bàgg ca moom moo taxoon sëriñ bi ci ay waxam mu daa wax ne bustaani kitaabullaahi sama tool mooy bi yàlla waaye yàlla ci boppam moo njëkk a wax ci alquran ne quli qul la in ijtamaat insu wal jinn an yaatu bi misli haasa alqurani laa yaatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin sahira yow yonent bi waxal ñiy jiima def lu mel ni alquran ne nit ak jinne ci kaw suuf si yépp buñ dajale woon ngir andi lu mel ni alquran dañ leen të donte kenn ci ñoom day dimbale ña ca des benn aaya képp mënuñoo def lu mel ni moom ci alquran yonent bi alayhi salaatu waxaat ci hadis ne xayrukum man allama alquran wa allamahu suuf si li muy yaatu yaatu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ak di ko jàngale yonent bi alayhi salaatu salaam waxaat ci beneen hadis ne iqra'u alqur'ana fa innahu yaati yawma alqiyamati safian li ashaabihi yéen sama xeet dénk naa leen ngeen jàng alquran te di ko jàngale alquran ëllëg day ramm ñoñam ibnu anbal Shaafi dafa mas a gént ibnu anbal di jàng alquran mu yónnee fa moom wax ko ko ba mu ko ko waxee mu may ko mbubb mu laaj ko ne ko kuy jàng alxuraan ndax dana ci jariñu bu ko déggut mënu ko bu ko déggee ak bu ko déggut yontu alayhi salaatu salaam waxaat feneen ne laa asada ilaa fi isnayni rajulun ataahu laa alquran fa huwa yaqumu ana alayli wa ana anahaari wa rajulun aataahu laahu maalan wa yunfiquhu ana alayli wa ana anahaari seytaane ñaar rek koy merloo ci kaw suuf ñaar rek la iñaane muy ki mokkal di ko taxawee guddi ak bëccëg ak yàlla jox alalam mu di ko def ci yoonu yàlla guddi ak bëccëg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat feneen ne maa ijtamaa alqawmu fi baytin min buyuti llahi yatluuna kitaabullahi wa yatadarrasuunahu baynahum ilaa nasarat alayhimu sakina wa xasiyadumu rahma wa xafatuhumu almalaikatu wa sakirahum laahu fii man indahu nee na amut menn mbooloo muy ne fi barab lenn ci néeg ci néeg yàlla yi di jàng alquran ak di ko jàngale ndere yërmande yàlla dafa wàcc ba daj leen kap ndere du yàlla dafa wàcc fa seen biir ay malaaka dafa wàcc fa seen biir muur leen seen mba laa fi yooyu yàlla di leen tudd feneen foo xam ni moo gën fañ koy tudde moom muy almala ul ahla borom xam-xam bu mag ci yoon dafa wax ne addis bii moo taxoon Serigne Touba sanc ay daaray kaamil tudde ko daaray kaamil xam ngeen ne ku ne liggéeyal na yonent bi alayhi salaatu salaam waaye daaray kaamil Serigne Touba lañ ko dégg jàng alxuraan ak jàngale ko nag yàlla da cee def sabu am solo mooy qul hal yastawi lasina yaalamuuna wa lasina laa yaalamuuna alxuraan dafa wax laaj-laaj boo xam ni ñëpp xam nañ ko mooy ndax ñi xamul ñi xamul dana ñam déedéet rek fa war a tege yàlla nag dana yëkkati daraje ñi ko gëm ak ñi jàng alxuraan nee na ñi ma ragal ci sama jaam yi mooy borom xam-xam yi waxaat feneen ne yàlla kum namm ci aw yow aw yiw dana la déggloo diine alxuraan bokk yi mooy téere bi mag ci kaw suuf alxuraan mooy téere bi nga xam ne bu ñu kenn jàngatu ko yàlla sunu boroom far àddina sépp alxuraan mooy li mënta ñàkk ci ndaw sëriñ tubaa nee na saa boo jëlee sa doom yóbbu ko ca daara job ba mënee wax bismillahi rahmaani rahim yàlla bindal la ak dañ ci sawara moom xale bi ak ñaari waajuram ak ko koy jàngal kon ndeke ku fi bàyyi njaboot la gën a gaaw ci mu texee mu ngay nga jël doomam yóbbu ko ci daara bu dee ci diggante alxuraan ak sëñ tubaa liggéeyal na ci boroom loo xam ne diisu ko ci dab waxee ko noo xam ne diisu ko ci dab nit nag ku ko bëgg mënoo ñàkk bëgg la bëggoon sëñ tubaa kenn du ko dab ci bëgg alxuraan moo tax mu ne barakatul kitaabi abdat kaw nii qadima man la nuural kaw ni nee na barkeb alquran moo ma def may liggéeyal ab liggéeykat bi yonent bi alayhi salaam te yàlla mi nga xam ne mooy nekkal lu lépp lu nekk moo def noonu yaquuduni yaquuduni alquranu lillahi bila sey in yasuu aw yadru mus bila nee na alquran moo ma amat ba ma àgg ci yàlla te dajoo maag lu may naqari wala lu may lor alquran rek a man loolu moo wax ne tartilu aya tartilu ayati kitaaballahi lii yàqudu dahra fadlullahi toftale gi may toftale aaya yàlla yi moom amatal ngeen li yàlla yi mu tegi sama dox rafaxanil quranu rafaxan lam yura xattu li xayri wa li xayri lan yura nee na alquran moom ma yëkkati ma yëkkati yëkkati ku koo xam ne deesutul ko gis ci kenn yàlla ni mu def Sëriñ tuba ku ko bëgg mënoo ko am kenn mënatu ko am ko Sëriñ Tubaa neen alquran moo ko def ayaatu sil arshi wa sil kursi taquudu nii bi sirri xalqati nee na alquran yi sunu borom jii di borom aras ak kursi yu moomu amatal mboolem mbóot yi nëbbu woon arayta nii sirra rasulullahi wa qaala laa ilaha illa allah ca dafa am benn préfet bu newoon ci département bi moo wax sëñ Moustapha loolu ne ko sëñ bi nekk na fi ñetti weer gisuma ma lekk sëñ Moussa nee na loolu jaaxal ko ndax nu ko nit mën a jaaxal na waaye nee na boo demee ca quraan yu diwaanul quraan yu ca la gise la taxoon su préfet ba wax loolu baa nga fanaan naan isaa xaraxta su munan aw roboha aw waqfan rawaytu musbiha nee na alquran tooloon naa ci foo xam ne boo ma jàngi ab sumun wala ma jàng ci roboho wala ma jàng sama waqaf damay regg ba dootuma lekk dara ca la waxaa ne isaa xaraxtu farra iblisa ilaa xayri jihaati wa ilaa nee na su ma jàngi alquran iblis tey da wacc ma fa jublu feneen fudul fa ma jublu yàlla andil may xéewal mu ne kon nag yow mi nga xam ne yaay tuddoo sëriñ bi sëriñ bi nee na la rum bi tilaawatil kitaabi maata saa mi na la si yafalu kullu maa yasa na nga sàkku ci bi yàlla bi lépp loo bëgg yàlla mooy defal lépp lu nit bëgg yàlla koy defal waaye boo sàkku ci téere bi da nga ko am sëriñ baxaar feneen ne addim yaa aqi tilaawatal kitaab fa innahu yëg fii la ansaba wala hitaab yow sama mbokk dénk naa la nga taxaw téereb yàlla bi dana la fegal mbugalum tey ak yeddeeli ëllëg mu ne sawaabu man yaqra'uhu fil janna daarul qaraari wal min wal munaa wal minna nee na yoolub ki jàng alxuraan ak jàngale àjjana rek lay doon mooy këru saxukaay ga di këru xéewal ga daan na kitaabu sil jalaali wal ikraami fiihi jamihi nee na yoolub ki jàng alxuraan day maanaam ah, téereb yàlla bu màgg bi nee na boo ko dee jàng jëruñ koy ñaan ndax li nga soxla lépp yàlla dala koy defal ci njàng mi koy jàng daan ne barakatul kitaabi faaqat sanna fa fiihi ma anil waral ma anil wara astakana nee na téereb yàlla bi loo ci jort lu ko kawee ngi ci loo ci lu ci nit jort lu ko kawee ngi ci mel na mag nettali na ne sëriñ bi daana wax ne sama dëkk bii di ku fi wut kër sàkket ko ba mu daj ba amoo fenn foo jaar nga toog ci biir di jàng alxuraan ak jàngale la ngay xewloo dañ la koy jël bokk na ci lim ñaan ci dëkk bi dafa ne wajhalhu dahban maskanata hallumi wa mawdiha fikrati wa tafahumi yow yàlla sama dëkk bi di alxuraan na ko def muy dëkkub xam-xam ak dëkkub tafakkur muy méditation di xalaat lu baax ngir gën a xam yàlla waaye wa maskanul irsaadi wa taalimi wa maskana tasfi tasfibi wa tafhimi na nga ko def muy dëkk boo xam ne dana jubal nit ci xam-xam dëkk boo xam ne dana jubal nit ci dégg xam-xam waaye nag wajaxalu maskana xuruji mina zulam li nuuri wakk fi anhu kulla man salam na ko def muy dëkk boo xam ne bii dana génne bépp tooñkat jëme ko ci ak leer te fegal ñu ab tooñkat ma ñaan na ba tey ne dëkk bi yàlla na nekk dëkk boo xam ne dëkku sunna la bu dee diggante sëriñ Mbacke Madina ak alquran fi la ñuy jeexale incha allah muy suñ bunt ci Seyxul Xadim sëñ Mbacke Madina dafa am ñetti ndigali jàng alquran moo ko nettali nee na bu njëkk bi mooy yàlla moo ne faqara umaata yasara yàlla moo ne na ngeen jàng alquran kemtalaay li ngeen ci man moo ne muy muy ndigalal sama borom leneen ndigal li Cheikh Mahamadul Moustapha moo ko ko waxoon nee na kero bi mu ko seetsee yaram wi xaw a mu ne ko sëriñ mu ne ko mbakke mu ne ko damaa bëgg nga toog fii ci sama wet jàngal ma alquran sëñ mbàkke ma da sukk fi wetam jàng kaamil bi ba mat mu ñaanal ko dem mu ñaan mu ne ko tubaarkàlla suba su mu del siwaat mu ne sëriñ mu ne ko mbàkke mu ne ko la nga defoon day am na solo lool dolliwaat mu defaat ko mu ne ko damaa bëgg nga saxal jàng alquran su ma jógee ci tëraay bi danaa la wax ni jàng alquran kon mu amati ci ndigal sëñ Manoune saa mooy ñaari yoon waaye yàlla ci kattanam. mu def ba mi laatan di siwaat Cheikh Mouhamadul Moustapha wàccub liggéey nee na mu boole ñaari naqar demuk Cheikh Mouhamadul Moustapha ak lim ko diggoon te joxu ko ko nee na waaye ndekke ku fi toogal sëñ Tuubaa di sëñ Tuubaa nee na ab diir Cheikh Mouhamad Fadil bi mu toogee mu dem fa siyaare ko mu ne ko mbaa sëriñ yaa ngi jàng alxuraan mu ne ko waaw mu ne ko nanka saxal danaa la wax ni jàng alxuraan ne ko dag naan ko nikk ne ko jàkk di tudd araf yi muy tàbb ci sa xol nee na ko nii soo ko defee te saxal ko ku doon doog a saw yaram dara duba di alxuraan ay wan mu ne nag ca la xamee ne kon ku fi toogal sëñ Tuubaa ndax sëñ Moodu saa ko digoon sëñ Falloo ko jox kon mu amaat ndigal la Cheikh Mahamadou Fall mu ñetteelu ndigal ci jàng alxuraan mu ne ko sëriñ mu ne ko mbakke mu ne ko ñun alxuraan nu fal te asgor du fàtte la ko fal ca la saxale nag di jàng alxuraan saa su wax ne wax naan damay wàcce kaamil suba ak ngoon nee na xamuñu li ñuy wax man fu ma wàccee tàmbali war naa wutu lu ma ko lim ma wàccee tàmbali naa wutu lu ma kooku nag ku muy sa bunt ci sañ Tuubaa da nga fonk alxuraan te da ko bëgg moo tax li ko defal lu yàlla la ab sëriñ boo ko dee liggéeyal dangay ngay dàkk ak bëggam alxuraan bokk na ci bëggam moo tax Muhammad ibnu Ashan ba mu koy way daf ne ko asharta ma kaana min saa diini mastuura qad jaxalta kitaaballahi dustuura tatluuhu fi kulli aanin bi lisaanin fa in suqilta fal usnu tasma wa bil yadayni dawaaman maasikanna lahu wa kaana saalika min sal jadayni mashura fallahu yuuliika maa tarju wa taamaluhu minhu wa yubqiika mahfuusan wa mansuura daf ne ko yow day la feeñoon ci borom diine gis nañ ko ci yow muy dangaa jël téereb yàlla def ko sukkandiku kaay yaa ngi koy jàng guddi ak bëccëg ci saw làmmiñ boo demee ba am soxla say nopp di ko déglu mooy maññeto fa bu ndaw bi mu yoroon daa ci teg Muhammadul Xalil Qushayri bu dee waxtaan yi nit moom lay taal di ko déglu nee na sa loxo yi sax nañ ci wëlbati alquran ba far di alquran waaye nag nee na loolu nag du asaar ci yow ndax sa ñaari maamee ca nga ko donnoo muy sëñ daam Abdourahman Lo ak Sayxul Xadim nee na kon loo def ci alquran rek war na la ndax sëñ daam Abdourahman ñëpp xam nañ ne moo daan naafila kaamil bi ñaari rakka saa su ne def na ko fanweeri moo tax sëñ aafi bu sa imaam jumaa yi tubaa ji bi mu koy way daf ne ko bakal kitaabu wala hadisi lil abad li siddati shonrihi alayhi wa kamat muskaana tiflan yahbudullaha samat barran walam yakun walam yusrik bihi rabban ahad kaana muridan saariqan walam yahid ani sawaadil ansami la si qasat moo tax mu ne ko xat xaasa ridwaanul xalifata bi xat sakartuhu mursiduna abdul ahad daf ne ko sëriñ Mbàkke Madina addis jooy na ko ak alxuraan xam naa ñu bari bu ñu wax alxuraan la ñu wax waaye sëñ Mbàkke man ni meloon ci addis bi moo raw Muhammad Xalil Qushayri ma Xalil bii ñuy jàng bind na ko ci loxoom sëñ Alaaji Abdu Xari moo ma nettali ne ki doon waxtaan ci rajo bi ay jamono yooyu bi mu demee ba ne kuy si jootal ni nangama nanga wax ca yi cay xew ñu di ko waxtaan ci kanamam daf ni kooku daa jaawatle waaye man jàngoon naa hadis boo xam ne daf ne ñaari nit du nuyoo kenn ki foon bakkanu moroom jën teqal seen loxo te du yàlla da leen a jégal ne ko ajjul ma téere hadis yi sëñ Alaaji nee na may aji aji téere hadis yi muy seet ba yàgg mu ne ko am na fu ko bindoon de nee ba yàgg mu ne ko demal ca sa baay Cheikh Sey ne ko na ma abal téere hadis yi ne ma def abale koy téere par yàlla def alaaji baara buubu ñëw nee na sëñ alaaji nee na maa ko gënoon sonn moom mi koy seet booba ngir maanaam leeral rek ci li koo ko wax ci addis ba mu ko bind bindaloon kon moo tax sëñ Afi bi mu koy way daf ne ko addis jooy na alquran jooy na ko mu ne sëñ Mbàkke Baat nit la woon koo xam ne kii ca ndawam la tàmbalee jaamu borooma mosu koo bokkaale kenn ca ba muy am at yu néew la ne woon sëñ Abdou Khari ne ko bi ma xammee sama loxom ndajoor ak bu càmmoñ mosuma def naqari sans borom sa teewul nag xam-xam beeg lépp ak euh, doon gi mu doon sëtu Seyxul Xadim nee na mu ne saadix la woon kenn daaw xam ab dayoom ci ak taalibeem moo tax mu ne làqoon na ngërëmal am nga sëñ Abdul Ahad sëñ laa laa sëñ Abdul Ahad moo ne woon lépp lu ñuy séddale ngir sëñ Touba te sëñ ma Madina amunti amu ci araam na ci ñun kooku nag bokk yi ku sab sëriñ war ngaa góorgóorlu ci lu baax seet la mu bëggoon nga teg fa sa tànk te ba nga koy yëkkati xam naa xaw naa naaj liñ biñ doon des na tuuti waaye ñu ngi taxaloon di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noonu la ñuy fay na pay. ndax moom ñëmut bor dampay te kenn ku ne xam na ne yàlla fay na ko moom li gën a yàlla bu wér wér yàlla fay na ko ci njabootam gii ndax lépp loo xamante ni bi sëriñ bàyyi woon na ko fi dañ koy dundal waaye amul lenn lu sëriñ bàyyi lu ñuy xëccoo ndax bu sëriñ bàyyi woon dara ñu di ko xëccoo kon taalibe yi du ñu am xelum di ko defal dara waaye warmaal guñ warmaal sëriñ Mbàkke man ak jàpp guñ ko jàpp ak benn benn duñ ko benn kon sëñ Abdou Khadir Gaye moom sëñ Moussa Gaye moom soxna moom la ñuy dalal doomam fii tey jii bi di ko dalal mu ko sëñ Abdou Khadir mu mag moom Cheikh Ahmadou Bamba imam na ko ñëpp ñaanal mu mokkal a tas yaakaar ci

incha allah am na solo. sëñ bi nee na alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baxda sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Cheikh Mbacke Madina te di leen gërëm te di leen sant ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey fii mu di jàngukaay bi mu wax ne naa moom sëñ Cheikh Gaynde na ñëw tey jii ubbi ko ngir ñu man koo tàmbali ku am ko bëgg a jàng mu ñëw ndem soob na yàlla loolu moo waral ab teewaayam fii tey nee mi ngi leen di doolee sant te di leen doolee gërëm di ñaan sunu boroom mu àgg mu àggale seen yéene yépp te defal nu taw feex ak tay siir ci barkeb sëriñ bi jërë jëf wa aleykum salaam wa wa barakaatuhu kon mbokk yi ñu daal di àgg ci ubbi gi nag bu na. bay nelaw rekk daa di tiit mu mel ne dama gis alxuraan man ñu fàtte ko malaaj ko mu daal may wax ni man ndékki laa deful ndeleg-leeg ñu jox mas añ akas tip maraare ko nda daa am ku daa ndékki ci man alifun banaas balaa bee jëm kaw tabur yàlla yóbbu ko sëriñ mbàkke madina ko daa def ci bis set balaa jël mu jàngub kaamilam nag ba sëpp ko sëriñ Mbàkke daa def alxuraan muy ubbi waxam balaa xëy wax ak nit faw kaamil mu jàng ko gannaaw alxuraan lay fonku def ko ni ab dundam xasaa yi di ñii ko i jàng sëñ Bàmba sédde ko gannaaw alxuraan lay fonku def ko ni ab dundam xasaayid yi ñii koy jàng sëñ bàmba séddee ko ko deb jàngkat boo xam ne siiw na te am xorom mbiram yépp daf koo jox sëriñ mbàkke dénku ko sëriñ seexloo sëñ wadd ak fàllu njaaya ngi te ibra kebe xaadim kebe yow li maale ko sëriñ daam sek baay mustapha kebe madina sëriñ baara gay njaareem sëriñ ndam doy na ko sëriñ Bada Njaay poofoon sëriñ Mbàkke cuuna ngi sëriñ daam géy sëñëm di sekk limaale ko sëriñ Mbàkke seen njiim jang matar géy ko baax a ngi ma jóob gay ko xam Seex Ibra ñaa de xam na ko sëriñ Mbàkke géy mbaylooja alxaaji sekk ngi sëriñ jaga mbay ñaamar ko baax ñépp xam na ko sëriñ Seex Ture sëñ baara mbay jaañ gi sëriñ fa lu sëy seex wadd sëñ sëy li maale ko tebul fàtte dantaalit tebul fàtte jaani mii amaat na ñeneen ñoo xam ne jombul ma tudd ko xasaayiti sëñ bee da ko belli génne ko ci biir alxuraan moo tax ñi koy jàng topp ko sëriñ Mbàkke Madina daf daareem di yëkkati di wax ca kaw ci teewaayu baayam waa tundóo di de xam na ko xasaayit bu àndeek alxuraan booba wàcc na ne doom ju ne sañ naa wuufu yaayam mu benku ko ma wax la digganteem ak sëriñ seex nga waaru yow dañoo mel ne lam ak lii fu nii jëm ñu ànd ko keroog ba nu jàngee nag ba ñëw sëñ bi woolu leen ne nañ ci sëñ ndaam abduraxmaan mu dénku ko sëriñ ndaam a ngay wax seexu naa mbàkke madina lu dul jaamu rabbul ars yow rekk moytu ko te loo jëf ci duniyaa ji lu sew sew du sew ëllëg te kat baay bu baax ak maam du te yàlla seggu ko boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama fii da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo